bismillahi rahmani rahim bismillahi yan nuuruhaay bila manaay wala intihaay hamdan li rabbi xayri murabbi xadrama xalbi bil ixtidaay entreprise bii di BIS bâtiment industrie sécurité service moo ñëwaat ak yéen ci projet de logement yu mucc ayib yaatu leer set te sell ànd ak kaaraange ci diwaan Touba à Lieu Lac Rose Daguerolpa ak Tivaouane Peulh diwaan yi nag dañoo wute am na F3 F4 F5 ànd te jàkkaarloo ak géej gi xéewal bu leen ci bis defal mooy di si ci mën a joxe 30 pour cent si njëg li li ci des ngeen mottali ko ci diiru ñaari at mbégte bâtiment industrie sécurité service mooy di leen taxawu si lépp li ngeen soxla si tabax jënd kër wala terrain bu ngeen ñu bëggee jot mën ngeen ñu woo ci 77 527 1807 wala ci whatsapp bi au 07 61 03 12 20. BIS Construction Bâtiment Industrie Sécurité Service vous propose des villas haut de gamme en duplex ou de plain-pied de type F3, F4, F5. Elles sont spacieuses, lumineuses et écologiques. Certaines sont dotées de piscines et sont en bordure de mer. Elle se situe dans des quartiers résidentiels et sécurisés. Ces villas se trouvent à Tiwawonpel, à Dagarolpa dans la commune de Yen, au lac Rose et à Touba à Lieu. Avec bâtiments, industrie, sécurité et services et l'esprit tranquille. Vous donnez un apport de 30% et le reste au courant des deux ans. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter au 77 527 1807 et pour la diaspora sur WhatsApp au 07 61 03 12 20.